fiñ koy tambalé dañuy dem feulé té li nga xamanténi mo nékkone cérémonie d'ouverture ligne ñi étiquetée étiqueté sociale qui dit son excellence le président de la république Macky Sall dal di koy euh, présidé ginnaw loolu nak yëkëti na fa ay cadeau jëmele ko ci li di étiqueté ak inclusion néna dal daal doon na benn source bo xamanteni source de confiance la bi wara dox ci digënté population bi jëmele ko ci li nga xamanteni moy politique publique bi ci bir loolu nak ki di président Macky Sall xamal nañu ko dal lepp lu jëm ci étiqueté ak inclusion suñu sukkundiko ci question bi nga xamanteni mom lañ ko jéglél mu justice sociale doon na benn source bo xamanteni da fay indi confiance ci population bi jëmele ko ci politique publique bi nga xamanteni da fa décliné wu ginnaw bi nga xamanteni dembu ci talaata bi fukki fan ak juróom-benn ci weeru janvier atum 2024 foofu ca Diamniadio kii di président de la république Macky Sall moom la ko doon président ginnaaw bu mu demeuree li nga xamante ne mooy étiquette ak inclusion doon na li nga xamante ne benn question de justice sociale la ba noppi daal di doon source de confiance jagleel ko ñi nga xamante ni mooy population bi jëye si wàllu politique publique ba noppi daal di décliner li nga xamante ni mooy terrain yi nga xamante dafa nekk au delà jëm ci ay pétitions yoo xamante ni tey principe am du dara lu dul li nga xamante ni mooy binnaaw bi ñu ubbee li xamante moy journée nationale jëmale ko ci étiqueté sociale ak territoriale mu accès ko ci ben thème bo xamanteni jamono ji yaakaar ni étiqueté sociale ak territoriale bi mo nek ci cœuru plan Sénégal émergent batay suñu sukkandikoo ci ki nga xamanteni moy le président de la République euh, du Sénégal monsieur Macky Sall néna dal daal xam leen que daal du seulement li nga xamanteni déclarer déclaré nañ ko comme étiqueté mo meuna jëm ci pratique yi nga xamante ni mën na joxe benn continue bu concret jëmale ko ci benn approche boo xamante ni bépp sort boo xamante ni ci ay chantier la yoo xamante ni battre nañ ko dans l'ordinaire ba ci propos yooyu daal mu ngi xamal daal benn initiative phare la ñu am jëmale ko ci ay action sociale ba noppi daal di évoqué li nga xamante ni programme d'urgence de développement communautaire ñu tuddee ko PUDC ak li nga xamante ni modèle bi nga xamante ni dafa innové jëm ci inspiré yeneen pays africains que li nga xamante ni PUDC bi dina permettre pour que ñu construire lu toll ci huit cent vingt sept kilomètres ay pistes yoo xamante ni dafay sukkandiku ci wàllu désenclavement électrifier lu toll ci neuf cent soixante quatorze villages ba noppi daal di installé lu toll ci trois cent vingt huit forages ci ay multiples villages yoo xamante ni jamono ji ñi ngi ci réewum Sénégal ba nopi daal di rappeler que lepp lu jëm ci distribution ci équipement yi nga xamanteni mo wara alléger li allégé di travaux yi nga xamanteni mom moy mooy ligéyu liggéeyu ba nopi daal di ciy teg li nga xamanteni moy ben programme d'urgence bo xamanteni modernisation lay indi jëm ci axe yi nga xamanteni moy territoire frontalier yi lu ci melni piment ak li nga xamanteni réalisé nañ ko jëm ci 249 km ay pistes ak li nga xamanteni moy 97 localités yo xamanteni tay permettre na li di désenclavement 284 bi ci villages yoo pour construire ko jëmale ko ci ay structures de santé ak euh, yo xamanteni da fay and ak ben commodité bi nga xamanteni tay tey président de la république Macky Sall souligné na ko daal démb ci cérémonie d'inauguration li nga xamanteni moy journée étiquetée sociale ak territoriale jëmale ko encore ci programme de modernisation yi nga xamanteni ni lañu dippé Promoville xam na ni que daal loolu impacté na positivement lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu trois millions d'habitants suñ ko xayma dina dollu ci 198 quatre vingt dix kilomètres yoo xamante ni ay voirie la ak lu toll ci 3998 lampadaires yoo xamante ni réjouir nañ ko kii di président Macky Sall daal di koy xamle ci programme bourse yi nga xamante ni mooy bourse de sécurité familiale bi daal di nay permettre daal lu toll ci trois cent ay ménages daal di bénéficier wu ci ay allocations yoo xamante ni initialement ci diggante 25 000 francs lañ ko porté de mon ko 35 000 francs CFA ci atum 2023 ba à atum 2013 ba tay ji suñu xolé lepp lo xamanteni jëm ci transfert à l'ordre dina tollu ci 268 milliards de francs CFA yo xamanteni effectué nañ ko ci ay titres li nga xamanteni moy bourse de sécurité familiale ba tey suñu ñu demee ci li nga xamante ni mooy programme de couverture sanitaire universelle bi nga xamante ni objectif am du étendre lépp loo xamante ni mooy maximumu bénéficiaires yi daal di accéder ci ay soins de santé yoo xamante ni tey mën na permettre képp koo xamante ni da nga war a passé benn taux de couverture jëlee ko ci 20 pour cent atum 2012 indi ko ci 53 virgule 2 pour cent atum 2023 ba noppi mu daal di réjouir ci loolu donte daal kii di président Macky Sall ginnaaw bu mu cité li nga xamante ni mooy DER/FJ doon benn instrument boo xamante ni dañ ko déjee pour automatisation ñi nga xamante ni mooy jigéen Ligueni, avec Génie, nous compter de jour en jour, le taux de 250 000 bénéficiaires ak benn gamme boo xamante ni tey mën nañu jàpp ni ay prêts yoo xamante ni dafa varié ba noppi daal di comprendre ci les plus petites ñi nga xamante ni appelé woon nañ leen ñii ñu duppee nano crédit ba noppi ak li nga xamante ni mooy ay différents instruments yoo xamante ni yokku na ci intervention yi nga xamante ni jëm na ci fonds de solidarité nationale ak ñi nga xamante ni mooy cellules yi nga xamante commissariat de sécurité alimentaire ak lépp lu jëm ci résilience bi doon na li nga xamante ni récemment ay direction générale la ba noppi kii di président de la république Macky Sall daal xam na ko ci li nga xamanteni mo doon cérémonie d'inauguration bi nga xamanteni mom la doon def fële muy étiqueté inclusion doon li nga xamanteni moy ay sources yo xamanteni ni sources yu fondamentales la doon ay sources de confiance digënté population bi ak li nga xamanteni moy politique publique <laughs>